kon daal tey am nga yaakaar ne rouge beeg zone beeg vert bi yëpp foo sànni mbat day tag waaw ñu ngi jiim daal lép lu nu yàlla jox nag ñu jël hmm. waaw di la wax ne dara ñu ay sénégalais lañ te liggéey nañ ko boo joxee ko prochaine journée non dans une semaine nga dégg leneen ci kàttanu yàlla lu nee tax cinquante grammes lu bees tàq chez Baol Production fu mu jëm ak ñun waaye ba léegi gis nga ñu ngi taxaw ni supporters yaa ngi ñëw waaye takk ñu ngi leen di xool ba xam lu ñu yor fekkee danoo yor luy lore maa lay moo grand ñu waaw ndeysaan sama grand nuyu na ma waaye Serigne Serigne Kara Sène borom Bilbao kontaan naa ci yow Baye Darou bi Baboulaye Babal janati nga yaakaar takk der yaa ngi noonu gis nga supporter yaa ngi dugg si ñii nii supporter bébé Diène lan gis nga ti seti bébé Diène lan sol kaay leen fii eh waa Medina lu ngeen wax yéen. Eh, kii buñ ko jaabee dina xam fi am fu mu bokk. gàqu deux la waaw gàqu deux. jërëjëf waaye la dëgg la. Lamine moo rëy. waaw ñaata kaar ngeen ngeen utilisé. xoolal rek. waay bëreeku leen de. waaw ah, bëreeguñu. bëreeku leen de. ba si kanam ngay xam ñoo moom. dañuy bëre daan waaw bébé jën yaa ngi noonu gis nga. bébé jën rek cay cay bébé jën. dañuy bëre daan bu la gis kaar ñoo na xam ne laa bàyyi. ba ma fal moo def loolu. nga ne. Ndakaaru Ndiaye. Ndakaaru Ndiaye. booy weexul lumbe. Ndakaaru Ndiaye màgg lumbe. ku am sa mbër na nga ko téye jëlee. yéen ku ngeen am maintenant lañ dëkk. ku ngeen ku ngeen am maintenant. Bébé Diène. maintenant ñu. maintenant dafa yaatu. un ba quarante cinq la yor. 1000 pour cent bi ngeen def. merci Bébé Diène la ñuy topp. Paye mi jëlaat. oh non war a ñoo mën ñoo bu doole. waaw loolu dina leer ci kanam de. non naa Thiès barki sëñ Fallou la ngeen. taari Paye Konko Paye Konko Ndiané. lii moo fi amoon tey fii ci ñamali la rek ñamali ñamali loo xam ne Assane Ndiaye boo ko def wax naa la cinq grand combat la waaye dama ne combat préliminaire yi Konia 3 ma nga nekk ca plateau ba nga nekk ci igri Kolobaat mbooloo moo fi dajeg petit tigre ma man xamoon daanaan bi waaye am na fi booy Malika gëj nañ koo gis moo fi daje ak ki nga xam ne mooy bébé Jackson loolu fii la Sitor gëj nañ koo gis si làmb Baye Darou bi eh, ki muy dajal Liwi Coor numéro 2 bi ikri Boy Niang malam ñaana numéro 2 doomu mbër la mbaartin mooy baayam Eumeu Sène Junior bu bari ñu la fi dajal yamul foofu de hey booy jaxaw mel na ma ikiri Samba Diaw la waree ku muy dajal Baba Dione Junior rakku mbër bi doomu mbër mi loolu fii loolu rek doyoon na loolu drapeau nen la waaye drapeau ba si la am na ci drapeau Bamba Fall mooy grand combat bi Cheikh Super jamono ikiri Mor Fadam bi mu fi mujj Ziza la mujjee daan moom mooy daj ak kan ah Boy Seye numéro 2 nga xam ne moom it gëj nañ koo gis Youssou Ndour moo ko fi mujjee daan ah Iba Mar loolu nekkul lu yàgg noonu la noonu la yi ñëw na en masse rawatina supporters yi bébé yi waaye Bamba Fall li mu def dafa am solo Mouhamed dafa jënd ay billets yu bëri gàkku deux te bu ko neexoon mu ne minute naa laa dëgg benn mbër bi laa jàppale mais ndeysaan nay gis feex la naa leen tëjee waaye mais sponsor la nga tëddee doomu Touba bi doomu Cité Fadia bi li mu fekkale te ñaawul moo jàppale ndaw ñi jàppale xale yi mu TDR moo mooy sponsor leader fu ñu jëm rek moom la nu mel moom la waaye suñu karaaseen bàyyi daaru bi tamit moom la waaw un TDR gisal ak Mouhamed Mouhamed neen la bëgg na ngeen gisee ndax koo gisee sa aajo faju boo ko jubee bu lambi poos fexe dem say poos béykat moo ko waxoon sin bàgge soxna loo ma jël ko jox moo nami moo moo fi la bul bul xalaat Site 47 moo fi jaar bàyyi daaro bi mi ngi foofu ci yaraax doomu yaraax la ndaanaan la nit ku baax la moom xam nga da ciy jàpp ak Babacar Mamadou Lama doomu nday mbay guy gi ñu ngi foofu ci Petersen ñoo jaar fii jàmm ak xéewal yàlla na ko yàlla tuuti askanu sunu gaal laa mujj tey yàlla fa yàlla wis sedd mu yàlla jeex ci jàmm kii daan daan Bébé Diène doomu réew mi la fii la dëkk Gakou Dóor doomu réew mi la fii la dëkk Boy Dakar fii nga dëkk doomu réew mi nga Ronaldinho fi nga dëkk Cheikh Sibar Diamane fi nga vingt mbër la di say daan di say daanu làmb noonu lay demee tey da ngay daan ëllëg ñi daan la waykat mag baa ko waxoon Mouhamed laa araloon tey borom borom Ziguinchor borom Gambia borom borom borom Sénégal borom Dakar Ndiaye jërëjëf ba ci kanam ñu demaat xool ci biir. le promoteur monsieur Issa Dieye Fatim Penda Magna koo koy bàkk yow monsieur Issa Dieye nu mu nekkee sama. fan ne ñaari la premier fukki jabar juróomi goro. sa maam maam la. non Goumba Gueye mooy maamam. Massiré Issa Dieye. moo demoon bataay Pathé Badiane. Massiré Issa Dieye sama maam la fa ne. ah yow kanaa jàngoo histoire. waaw bataay Pathé dafa maamam fa daan. gis nga yab de. jigéen daa ko fondoo. waaw loolu dëgg la. waaw tagg naa la de bàkk naa la. sama xarit nga. ngay njoora nag maa bëgg dañoo yàgg. lu yàgg lan la. ah lu yàgg lan la. dañoo yàgg dëgg la waaye léeg-léeg nga jël sa yoon waaw tey bëgg ñoo jaxase te ñun ñaar ay nitu démb lañu. waaw démb waral tey. wéykat wax na ko de. bu démb amuloon tey du am. déedéet. wallaahi waaye li mu woy téere la dëgg la. waaye dëgg la gël dool booy. waaye li mu oh, li mu li mu dëgg la. mais ci maa ngi sant yàlla bu wér a wér wér. waaw tey nu ñu ñëwee mooy sunu grand mooy xew la tey muy Baol production Assane Ndiaye tëgg journée bu neex waaw diggante Bébé jën ak gàkku 2 Cheikh Super Jamono. Boy Sey 2 combat ci nekkee mënuñ ko lim. Boy Dakar Boy Dakar. Ronaldinho yëpp ay grand combat la mu booy leen ci benn bés. Ah, tey ku ñëw ci stade bi heure bii nga xam ne lambu samedi. Hmm. nga ñëw ci heure bii stade gis naa bi jafe na. moo tax daal tëgg lu neex rek am solo. waaw booy tëgg tëgg lu neex de. waaw ah, non non amateur yi bëgg. loolu da ciy am solo booy tëgg tëgg lu neex. lamb samedi moom nga ñëw gis stade bi mel ni su heure bii. waaw léegi dama bëgg nga ñëw ma tëgg. ah Bébé Diène Gackou nga combat ñoom ñaar ñaari ay ndaama lañ te ñaar ñoo xam ne kenn gënu leen a ñeme seen génération bi moo tax nag tey na gars yi séntu combat bu métti combat bu yomb de. Bébé Diène day dem ba jeex gàkku dar la. bu gaawee ku arrangé. Euh, bu gaawee yéexee. bu yéexee. gàkku de non non non maman <laughs> ah, waaw bu gaawee ba arrangé. bu yéexee bu yéexee arrangé na Bébé Diène ndax nag dëgg yàlla. Bébé Diène tamit gëj ngi ko gis. 2018 la gëj a bëree. diggante bi amoon na ndog-ndog. maanaam tey ñu moom testament lay doon suñu ñëpp kenn xamul lan moo ne ci Bébé Diène lan lay indi. waaw ndax boo toogee deux ans wala un an boo xam ne nekkul ci course bi rek ñu ngi fi bàyyi woon am na nu ñu la mën a rawee ndax fee wax dëgg yàlla fi mu nekkoon entraînement bi mu war a entraîné normalement waaw kon. tey moom testament bu fekkoon ne Bébé Diène mu ñu xamoon la bi doon dem ligue bi doon dem drapeau chef de l'état boo dalee ci kaw jëla prise ci kaw jëla prise ci suuf bu ñu joxee favori ñu ñu neexee waaye nee na doon tey bu koy jox favori nécessairement nga koy jox ndax ki muy dajee tamit daanaa nu bëre kan la tamit xale làmb mag mu làmb la waaw jaajëf jaajëf amateur yi ñëw waaye suñu amateur kii mooy porte parole bi kii mooy la Balla Diop taalibe suñu Mudu Moustapha bi yaa ngi ci Lutte TV point com maa lay nuyu Khadim Anta ñu ngi lay ziar baax di la bëggee di ziar sa caméraman Mouhamed di ziar képp koo xam ne yaa ngi seetaan site bi rek li TV di bëggee adduna di na tey bis bi dafa awlaa doomee dama bëgg organisation boo xam ne nii bu mucc ayib la maa ngi gis ci Balla Gaye contre Yékini bu njëkk ba organisation bi gis gisaat ko ci Balla Gaye Boy Niang te boo xoolee stade bi tey ji ni mu taaroo xam ne promoteur bi bëgg na satisfaire amateur yi kon ci kanam tuuti naa ne supporters yi dinañ ñëw amateurs yi dinañ ñëw te it mbëri dañoo doon ñaari mbër yoo xam ne ni muy gàkku deux di bébé jën kenn ku nekk mbëru gox la kenn ku ci nekk ci mbëru gox la kii di gàkku de day jógee géejawaay Balla Gaye indi ko ak ñeneen ci ginnaawam kii di bébé jën jógee Medina ànd ak bébé jën ak ñu nekk ak jën ak ñu nekk ci ginnaawam kon tey làmb la waaye doo gisee euh, ñu la toog di la limal di la limal ñoom ñaar dañ leen xam xam na ñaari mbër yi ñu boole ñaar ñi kenn ki ku ci nekk da nga mën a bëre gaño da ngay jàpp ci gaño boo jàppee sa combat day jeex mais tey combat bi yaakaar ma ci xeex bu bëri ah. bëri laa ci gën a yaakaar nga ñëw tey ci Boy Seye 2 gëj na bëre mu jugee ci defet ñëw war a dajeeg ndaanaan dinaa Cheikh Super Jamono mu jugee ci ndam kon laa mujj méttee ngi noonu tamit ñu ñëw ci Boy dakaar mi ñu xam bu war a bëri Ronaldo di ñëw bu tëngéej loolu it làmb la Boy Jaxaw ñëw ak ma Baye si Junior kon tey Assane dafa indil ay combat qualité la ñu indil combat yi naan combat yi ndaw non non combat yëpp ay bis lañ ndaxte booy ñu boole ci bis bi kenn ku ci nekk booy jug sa day jug dañuy ànd ak yow ñëw mu tudde ko kan Bamba Fall maire Médina kon tey lamb mooy dekki cosaan dina dekki tey arène national daal bu ci kanamee tuuti da ngeen fi gis lu raar animation bi ñëw yéen it ngeen doon ay ndaanaan yoo xam ne ni li ngeen di joxe ci lamb ji rek mu ci ne ayib waaw jeex na taag gis amateur yi boo leen joxee plateau plateau bi ñu bëgg dañuy teel a ñëw xoolal tey dama bàyyi sama yëpp maa ngi toog ci bi lu ma fi indi gàkku doo kumpa gi moog bébé jeen ak yeneen combat yi ci tegu kon mbokk yi ne ñëpp ñu ngi di woo ci stade bi tey képp koo xam ne yaa ngi suivre Lutte TV si kanam tuuti nga bëgg a seen bi nga dem seen affiche ngeen dem jënd code bi mën na seetaan lamb ji te lamb ji day doon en direct si code bi lay doon seen affiche kon gars yi baax yéen ñëpp amateur lamb yi yéen ñi nga xam ne dundoo leen lamb sax bëgg nañ tey jii daal ngeen dund lamb xam na lamb culture la ak cosaan cap ak ñu jugee Médina ak ñu jugee Guédiawaye ak ñu jugee Thiaroye ak ñu jugee Tëngéej jàmm ci jëkk jàmm ci mujj sport la kii bëri mooy daan kii bëri mooy daanu ñaari ndam mooy dugg mais benn génn kon que le meilleur gagne di wax gars yi. Mouhamed gis nga ñooñu ay promoteur lan kenn ki petit la gis nga tey dafa dafa sañse mais Mouhamed tey man sin karaaseen produit baaw moo ma solal tey Espagne la jóge woo ma ñëw defal may teraanga sin karaaseen ma nga ma nga ma nga yaraax doomu nday loso de Serigne Ndour waaye kii Jurbel production moom le le vingt cinq février la ñëw suma juumul de samedi tey seen caractère moo ma génne fii jëlal jëlal jëlal jëlal gis nga daal yi vingt cinq mille mayloo ko seen caractère moo ma fi la jóge Bilbao moo ma génne fii génne ma fii ak Mbaye Babacar doomu nday Mbaye guy gi tey ñoo ma génne fii maa ngi gërëm mais kii Diourbel production boo nee Diourbel na bawal kii mbër la woon sax écrit rëbës la nekkoon kii mooy sal <laughs> sal confiance confiance bi nag tey am na ko ba dugg si làmb ji samedi 25 février ci diggante ñaari xale yoo xamante ni oh soq l'enfant chéri de Jaxaay fekk naa ko Gàmbi waaye kii bi dajal fils de Kati mbër la mbër la moo doon Cheikh Mbaba réew maa wala dëkk kooku su bëree mbër la su bëri mbër la mais balaa maa moom ci loolu digganteem ak Assane Ndiaye ay doomu ndey lan Bawol Jurbel yëpp benn la maa lay bëgg di la siyaar mën nañu. waaw doom maa ngi Seck di kontaan ci yow vraiment di la ñaanal jàmm ak tawfeex di ko ñaanal sama xarit Mohamed borom montage rafet saa yi présenté ma ko nee na dégg naa li fi gën a rafet saa yi ma koy monté wul baaxul loolu laa dégg xam nga mooy loolu loolu laa dégg waaye di leen ñaanal jàmm yéen ñëpp di wax ne vraiment ñu ngi rafetlu seen ànd yéen ñëpp parce que fii yéen ñëpp ay xale ngeen di ko liggéey muy nice vraiment ñu ngi lay gis saa nekk gars yi ku ci xew la dara nga dem jàpp ci te yàlla tax di ci sonn baax quoi loolu am na solo waaw nuyu sama xarit sama doom day petit moom yàllaa ñu boole mu nekk baax war mm-hmm. ndeysaan moom yàlla daf dañu gisal ñun ñaar rek bëggante waaw loolu dafa am dëgg la nag mu nekk ñun ñaar ñëpp ay xale mm-hmm. waaw mu nekk gaan bu baax daal vraiment boo xam ne nekk concert rek la may jox mais tey wane na yéen ay bawol bawol ngeen yéen promoteurs yéen ñëpp benn ngeen ah, na mm-hmm. waaw ba nekkee xale yëpp itam eh, sama gine yaakaar naa combat bi nekk yëpp yaakaar naa ci moom la woon mm-hmm. tey su la ren Assane sama combat bi moo ko man ak Ama Baldé moo ko boole même journée moo ma yóbbu ba Gambie euh. Assane rek Assane sama lépp Assane la ñaata combat aren nga am cinq combat laa def kan nga daan Euh, kële nu mu tudd Selu Selu bu Caaray ak kële ak euh, John Sina. ku la daan. non Baypal ci Baypal laa ñàkkee. ah bëri ngeen Baypal. waaw ah, bi mu bëree Ama Baldé ba pare ñun ñaar ñoo bëri grand combat. Baypal mel ni bi nekkoon Indonésie nekk États-Unis léegi. non champion sama xarit nag góor ndeysaan nekk nit ku baax. boo xam ne ni sama papa gaañoo moo fa njëkk woote. ci biir bi la ci la sama papa feebar quoi nekk Soweto. Mhm. nekk fële hôpital. Mhm. loolu moo loolu moom loolu moo ma gën a gën a ne kii quoi mais heureusement itam bi sama papa gaañoo vraiment ñi ma woo ci la bokk nekk nit ku baax mhm. vraiment loolu kenn du ci wax sëñ bi Pape Gackou kii rek jur wax li ci suuf rek kenn mënu ko lijjanti li ci suuf laa wax xoolal combat dafa doy xam nga Assane moom leen benn affaire mooy catam moom bépp mbër day refe pour bëre bisam mhm. tey mën nga bëre 20 combat ban la xam mais boo bëree sur na Assane Ndiaye benn jour ñu xam waaw loolu yàlla moo ko defal. mais yow le 25 ngay ñëw de. waaw le 25 incha allah ñëw ci pactum de feu. waaw fils de sox bu jaxaay. loolu bés la signature bi siraat naa ko sax loolu naa combat def ku mel ni sama sama grand sama xarit. waaw mu ma jax ma tuddee ko drapeau bi nekk entrepreneur. bu mag bu nekk fii jaxaay. vraiment di dimbale xale yi boo demee entreprise ba macha allah ñaanal ko jàmm rek lan mën def. kon le 25 fii. le 25 fii boo la jëlaat sama benn rakk bu dëkk Ndiagéen muy Modou Gueye. waaw waaw ko ci drapeau ak drapeau Pape Diakhaté jël ci benn drapeau tuwee ko Laye Ndiaye bu Kawens ko waaw Laye Ndiaye kooku dafa am parmi bi ko jàppale kooku dafa gis waaw di profité daal di woo képp promoteur bu nekk fii rek maa lay woo site a yaatu di ko féliciter rek di ko ñaanal jàmm Diourbel production petite production la bool bool la waaw waaw jëlal waaw waaw boo ko footalu mbëtt roccil bar maa lay bëgg moo nami dafa bëri tiitër nag de dafa bëri titre sigil xaaral sëñ maa lay ziar ginnaaw ban sant yàlla di sant suñu ñaar sant suñu sëñ Abdou Karim Mbacke nuyu sa confiance doom la 25 février ah fii tey nag li ñu fi indi ñëpp xam nañ ko cinq grands combats ci lamb gëj na ci lamb ah. bool production saa bu wootee def jaroole daf rafeti jaroole ci bés bi mu wootee tey gàkku déwé jéen loolu rek tëj doy na lamb mhm. mais mu ne la Cheikh Super Jamono dama koy indi boole ko Boy Sey 2 xaalim la bool xam te da ngay cons di am lamb di cons di am lamb di toog di am lamb. fii ba 19 20 heures ngay am lamb. mais Bébé Diène nga ñëwal ma ci. non la mais tey ñoom ñaari mbër yëpp tey war a bëri ci bën daal sa staff na xam nu lay indee quoi. Hmm. parce que gis naa ne bu gaaw am na ko bu yéex am na ko bu gaaw comment arrangé. non lambu ju neex la daal. nu bu gaawee ku ma arrangé. neex la ñuy. promoteur la du dara. xam nga fu ma waxee tey mooy lambu tey pour man tey distance bu bëree lu gën a yàgg. mën hmm. naa gën a arrangé ki xam moo gën ko dëgg. mais Bébé Diène pour man ci système am war ko mën a ci première minute yu njëkk yi. Hmm. war naa mën a gën a gaaw quoi bu gaawee mën na ko arrangé. surtout bu ngor Alioune Sèye Junior ana mu waaw Siteu war mu ngi voyagé nag mu ngi ci waajtaay Alioune Sèye mu ngi ci waajtaay ñoo ngi def tamit ay démarches pour waaj incha bu ñu ñëwee xam naa ne affaire yi dina dina neex dina yëngu. mais Alioune Sèye ko aj pare nga tëgg ko. non mais loolu léegi mu jeex koy lijjanti CNG ñun suñuy papa la suñuy nijaay la ñun ñëpp c'est la famille baal ko Aline dafa juum ndaw la baal ko kon mu ñëw mën a bëre si ay ndaw lañu xam tamit Bouzy ak Ziza tamit gis nga day coow loolu fa est-ce koy Iba Mar Diop moo ko def grand combat lépp du sa wax bëri ci benn takkusaan kontaan amateur parce ñun tey dañoo nekk ay ndaw yoo xam ne ñoo ci lam yàggul mais dinañ def tout pour loo xam ne jël mais nuyu sama xarit ba Fallou Fall Touba ba marché Ocass sama xarit kenn du moom ci il faut mu gis leen ah. moo xarit doomu ndey Lamine Seck borom nit TV Abdoulaye Sarr maa ngi nuyu ñëpp Medina Pro Lavage bi sant ñëpp gërëm ñëpp du nuyu Mohamed sa caméraman ak ak ngeen kaana Assane Ndiaye tëggal na ko ancien mbër la yéen a mbëri ndóor ka ancien mbër la Assane Ndiaye tëggal na ko te ancien mbër dafa bëri si làmb ji de Ama Baldé ak ak Kati Junior moom mii moo fa bëri. maa lay bëgg. waaw loolu dafa leer maa ngi lay nuyu Xaadim. maa lépp jàmm. oui lépp jàmm kay. ah kon yow ancien mbër nga. waaw ancien Sall Confiance ancien mbër. <laughs> waaw noonu la demee Assane moo tëggoon sama làmb man ak Socé Mané. bu bawal. waaw man ak Socé Mané bu bawal waaw. loolu kañ la woon. loolu su ma juumul mi ngi nekk le 15 mars 2009. Ama Balde Kati Junior. Ama Balde moo bëri grand combat ba ak. Papine Sandika ah. ah. confiance mi romb sànq jour boobu bëri na ci ak njaay Lambaay. Ah. amoon na ko tudd ku sa bëre. waaw. loolu na trop yàgg na trop. ba léegi. waaw boobu laa tekki ngemb li nag. lu tax nga tekki waa xam nga làmb dafa xaw a te boo nekkee benn loxo boo amul ay ñu la jàppale. ñu la dooleel. loolu moo tax ma bàyyi làmb mm. waaw ñàkk ay jàppale. tey tey journée tey bi laa bëgg nga ñëw ma cinq grands combats. waaw journée tey bi moom ah Assane moom wax dëgg yàlla gàtte na tey amateurs yi. Mm. parce que cinq grands combats yombul ñu koy gis ci benn journée. parce que ñoo ñëpp kenn ku ci ne mën nga ko tëgg fii tey mu nekk combat nga bootal ko yeneen neuf combats yu ndaw mais tey mu indil cinq grands komba tey ji amateurs yi moom franchement amuñu dara lu ñuy wax Assane lu du ñëw wuy si ko ci bis te xam ne tey ku fi ñëw moom boo màndiwul làmb di nga xaar saison prochaine. Mm-hmm. Mm-hmm. technique techniquement laa bëgg nga ñëw ci Bébé Diène Gackou 2 ñaari mbër yu toll ñaari ndaama la. waaw analyse foofu parce que mën naa wax ñaari jinne la combat bu naqaree analyser parce que ñoom ñaar ñëpp ay technicien lañ gis nañ Bébé Diène ci combat bi mu jógee xaw na yàgg moom ak moom ak moom ak Fourière waaw euh, gis nañ Gackou 2 jóge ci Boy Dakar su ma juumul ci la jógee par euh, arrêt de médecin la ko daane woon mais tey combat boobu combat bu naxaree pronostic parce que gis nañ Bébé Diène ndaanaanu bërikat la gis nañ ko ci simple bi gis nañ ko drapeau chef de l'État muy compétir xay na nag xaw na gëj ci làmb mais loolu pour man yàqul mbër parce que dañuy war mbax mbër day manqué compétition non mbër amul compétition parce que mënoo di bëre chaque année benn combat ñu ne am nga compétition li ngay def chaque jour wala chaque semaine loolu la ñuy tuddee compétir mais chaque benn benn combat du compétition du compétir mais Bébé Diène tey jii daal moom Bamba. jël boobu xaw ma ku ciy daanu mais ku ku ci daanu. yaay def top 5 bi ba saison bi di tëj doo fa jógee. jël bu rëy jël jinne lay doon. nañu teg arbitre yu vigilant yoo xam ne nii. sur ci combat boobu noon arbitre yi nañu vigilant bu baax a baax. parce que bëri ngay gis foofu. Boy Dakar ñëwal ma ci Boy Dakar ak ak ak rek ma dem. waaw Boy Dakar Ronaldinho tamit mën naa li ma wax ci combat boobu laay wax ci combat bi. parce que gis nañu ne Boy Dakar ba léegi ginnaaw la gol suuf car macha allah benn defet la fi am te gàkku mii tamit jóge na si kaw Gourdin tegale ñaari victoire moom tamit di ndaanaanu bëre. mais dañoo bokkul ay façon bëre ñoom ñaar parce que Ronaldinho presque ci loxo yi lay bëre épaule lay bëre. loxo yi gudd na am na doole ci lay bëree gis nañ tamit booy dakaar Dakar ndaanaanu bëreekat la xeexkat la combat boobu moom dina am xeex parce que booy Dakar day xeex day bëre Ronaldinho moom day bëre. kon ba ci kanam waaw incha allah demal sax demal ci porté. mat sëkk sécurité bu doy donc ci loolu la nekk nii ba yaakaar naa nji dal na rek laas. waaw xel dal na. waaw li nga gis fii moom ku fi ñëw da nga xam ne tey da nga ñibbi jàmm seetaan lamb jàmm ñibbaat jàmm parce que. ñun non violence lañ lañ woote donc ay doomu aadama boo leen wooyee bu ñëw foog nga wut seen sécurité mhm. moo waral tey ñu déplacer moyens yi wut une sécurité bu doy policier bu doy am na ñoo xamante sax yaa ngi daje ñoom te xamul ay civil lañ mhm. donc kon bis mu moo laaj lool fii ñu tuddee koo xam ne mooy dee kenn fii ni muy Bamba Fall waaw borom Medina donc li fi war a daje lépp dañuy jiim rek kenn ku ne booy ñibbi nga ñëw ci seetaan ci jàmm ñibbiwaat ci parce que ñun loolu lan loolu lan soxla toujours quoi waaw loolu lan bëgg mu fees macha allah zone vert rouge yëpp dama ne hmm. li ci kam rawatu bët dañ cee liggéey lii nii hmm. <laughs> dañ cee liggéey de la xam na ne bu ci kanam tuuti 18 heures da ma ñëw da ma jox loxo waaw ba ci kanam incha allah jaajëf jaajëf ki jaaykat la kee coach la amateur caw star mbër ñoo fi dajaloo xaw ma lu ñu def fii nag dañuy di ko waxtaanee Aïssa ci loo ne. maa ngi si jàmm. lépp jàmm. <laughs> sant yàlla. tey. sant yàlla bu wér de. tey de lamb ji ñëwaat nga tey tey tey tey tey nan la nan la demee jaay bi tey tey nu mu demee. ah gisaguñu loo xamante ne jaaxal nañu ne. parce que mm. ñëw nañu ñu daggaloo ñu ticket ñu dagg yeeg toog. di ah, xaar tey dagg ticket la. waaw ah, tey dagg amul gratuit. non bool bool bi mu ayee. mais garaawul parce que lim ñu daggaloo mën nañ ko jaay lu ëpp lool. Oh. 1500 dafa mel ni bëriwul su 1500 dañoo boole ñaari jaaykat benn ticket jaaykat bu nekk day joxe moitié ñu jënd benn ticket pour ñoom ñaar. Ah, loolu loolu jaadu na yenu na maanaam. waaw loolu yenu na maanaam moo tax bi ñu waxee euh, teguñ ci baat def nañ ko yéeg ñëw toog. pour jafe-jafe amul tey. ah foogaguñ ko de peut ci kanam làmb ji daal ñaan bu jàmm amee rek. jàmm kay mooy am moom. incha allah dinañu jaay jeexal te duñu tere kenn. soobee yàlla jàmm mooy lu tax nga ne bu jàmm amee maanaam bis mu rëy wala lu waral jàmm amee. làmb bi nii xoolul làmb bu mag parce que làmb bu mag a mag la parce que ay ndaanaan lañ ci boole. ñëwul ma ci ndaanaan yi. ba xaw ma ñëpp nag. léegi da ngaa de. <laughs> Euh, ku ci mel ni bébé gàkku 2 waaw mi ñu namoon ci làmb ji nga xamante ne waa làmb jooy nañ ko lu yàgg mu def retour xam naa dina indi retour bu doy waar ñuy wax euh, champion bi aussi gàkku 2 Ronaldinho borom Tëngéej ba Dakar borom ñaatali Baye Mandione Junior muy magu euh, magu Marème ak Boy Jaxaaw aussi ñoom ñëpp li daal làmb bu mag la daal dans l' ensemble Boy Malika bëri ay lamb yu mag kese la kase kese kese kese. kon lamb yi dafa mel neex na de. ah waaw lu 11 la ñëpp doon xaar waaj nañ ko ñaata weer. ñëw na lu waay doon jaay tey mu lamb kon tey yàlla bu seen jaayi lamb kon seen jaayi na jar lu waay doon jaay léegi mu lamb. yéen yéen yàlla bu ngeen lamb la yéen. amiin ngeen si loo nekk. maa ngi sant yàlla. tawfeex. sant baax. yow da nga am mag buy bëre fii tey ngay rakk buy bëri nga ñëw di daan da nga jaasi. waaw ñun suñu kër mooy làmb ñun làmb amatuñ ci stress. seen kër nu mu nekk làmb. Ah, suñu kër gépp suñu góor ñëpp ay mbër la. ñaar la fan ñaar lañ kat. ah ñaar nga xam. bàyyi ma ñoon si ñoom rek bàyyi ma ñoon mag ma kese. fàtte Badou. Badou mooy kan. Badou ah, na. <laughs> ñett mbër ngeen am kon. waaw ah, ñun amuñu stressu làmb. mais man dama gis sama sarak buy bëri yow da nga am stress di tiit ak yooyu noonu mais yow nga ñëw toog fii ci di bëgge. non déggoo li ma la wax xanaa ñun amuñu stressu làmb te sama rakk ji ku ma wóolu la di ko ñaanal nag ndam lu seddu guy muy rakk ju baax. Kabira moo doon Lat Joor de. waaw ñun dañoo ragal loolu. moo doon Samba Jaw de. fi pour lu nooy. moo doon Cheikh bu bëggoon lu nooy day tëdd kër gi. moo doon Moudou Matar Gueye ki muy bëreel moo doon Papa Kane. waaw waaw. te Papa Kane ku ko xamul dégg nga ko. mbër la woon. ay jalooreem du fi jóg. déedéet jeexal na waaw. te moo doon magam njoon. waaw kon ko nga xam ne kooku du ragal. ñaari bis nga ne le 12 mars bàyyi ma njoon nga jëm Kaolack. waaw ñoom ñëpp dañ leen ñaanal yàlla may leen dam ndam du sedd guy. waaw ah, mais nag tey moom moom sama rakk damaa ñëwee ñaari côté tey dama liggéey si supporté si parce que day rakk ju baax ju yaru ju ma respecté ju ma jox cër pap yaru la waaw ku ku joxe cër ñu koy ñaanal ndam du sedd guy waaw dañu bëgg futur roi des arènes bi dañu bëgg mu juddoo suñu kër doon suñu jaat moom. Ah. waaw ñu am yaakaar ci moom lool. léegi tey da ngay jaay ba benn heure bi nga bàyyi ñëw toog di seetaan. wala wala noo koy jaa jaay ak supporter sa rak. waaw xam nga man nag <laughs> milieu bi ci laay liggéey. waaw la lamb waxaat naa la ko léegi nee naa la aw ma stressu lamb. damay ñaan yàlla mu bëre daan waaw à tout moment nag moom boisson bu jeexul ba mu jeex ndax lépp dama leen koy jox ñu sangoo ko ñun ay lebu lan. ragaloo loolu de. mu ko ci àddina sama rakk jéem a gënal lool na. ndeysaan damaa kontaan naa ci yow. merci beaucoup. borom caaroy géej lebu bi. waaye jaw fara lart jaw ma jaw xoor kër suba ah nag ma ca may ma jaw fara lart jaw ma jaw xoor li nga fekk a ñaawul la waa Seck laa sant surtout Cheikh Yérim bi mu ngi nii le course la équipe Rebeuss daal double moteur Sall Bawol caatu Rebeuss jaw fara laata jaw kon ma jaw xoor nee na su ma tegee li ma leen may ma joxal ma ko instant. ci loolu rek. sant Serigne Touba. yàlla loolu baax mhm. waaw noonu lay demee bisu bis bi la comme bis rek te bisu Bawol moom du gan quoi pour mu def lii mu def lii loolu du gan. miin nañu lii ci moom. waaw. non doomu buur la yëfu buur lay def yëfu garmi la. loo nekk 14 ans boo ci yàgg na liggéey la laaj. waaw lu yàgg lu nekk dëgg la loolu la gars yi te moom dafa ñime bis des ñu ñun ñoo koy téye sax day bëgg a def dara ñu ne ko doy na mais bu doon moom rek lim yéene romb na lii quoi. nañ ko ñaanal yàlla yàlla suturaal ko waaw Sénégal ko namm waaw loolu Sénégal ko namm te tey Médina dafa booloo ci ginnaaw falaa jóge foofu yëngu na ah, bu ñëwee nga xam ne pël bi ñëw na maa boo bëggee gis ko mbaa bu neex tey seetaan dina xeex dinañ bëre moom mais yàlla baax yàlla baax